na ca rek ngir daal di ca def ndox mu sedd loole bokk na ci dalu yéenekaay bi xëy ne fàngatey ji ci xëtam na ngir nag fexe ba ci réew ko Sénégal dañu am ab crise institutionnelle maanaam nag jafe-jafe ca boobu lekk hémicycle jàpp leen dal ne député yu wàllu Sénégal ñoom la dal di def moom mooy teg ab proposition de loi boo xam ne dana nag méngaleeg jëmmi jamono li nga xam ne moom mooy jëm ci règlement intérieur bu assemblée nationale loole di nag am ci taxawaayu ko Nafissatou Diallo Ibrahima Ibrahima Diop ak Serigne Abou Mbacke Thiam mi nga xam ne ñoom ñoo sumb uh, lu ni mel la loolee itam bokk na ci loo xam ne laas yéenekaay moom la xëy ne fàng ci xësta mu njëkk bu ñu koy xayma PDS jamono ji daal moom mooy li nga xamante ne moom moo taxaw rek uh, di sowe yëf ya bu ñu ko xayma la ñu bëgg moom mooy nag ñu fexe ba règlement bile ñu daal ko rek jëmalaat bu ko defee assemblée nationale taxaw rek ci uh, lépp loo xam moom moo ñeel wàllu restauration poste de premier ministre bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango wutali diwaanu ko Colobane nag coow li nga xam ne jotoon na fa am Sud Quotidien ne kaay nag ñu dafa mel ni rek jamono ji bu ñu koy xayma coow li lëmbe askanu ko Sénégal bokk na ci daal loo xam ne euh, nemmeeku nañ ko ginnaaw nag ba fa Ousmane Sonko di élimaanu jëwriñ ya wàccee di béer fanweeri fan ci weeru juin bi ñu nekk ngir addu jëmale rek ci lépp loo xam ne moo jëm ci bataaxal ma ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye joxoon ngir rek mu daal di ko jox ci weer wi ñu weesu moom Ousmane Sonko moom nag waxtaanee woon na rek taxawal ay cantine waaye tamit fexe ba ñu am yeneen i pexe yoo xam ne dana rek gën a dimbali lekk commerçant ngir rek gën leen a reloger waaye nag yéen i nekk nañu lu ni mel daal dafa mel ni du lu bees ndax te ci ginnaaw rek jotoon nañu ko gis ak régime bi weesu rawat na rek ba ko Khalifa Babacar Sall jéeme woon jamono ji nga xam moom moo jiite woon rek euh, mairie bu Dakar waaye euh, coow amoon na ca ndaxte nag junniy cantine la ñu waxoon boobaak léegi daal ñoom ñooñu sax ba léegi euh, ñu ngi ci ñu toog rek di leen xool kenn nekku ca ndax basiiru Diomaye nag moom dana rek am ndam ci li nga xam ne sumb na ko fi nga xam ne daal ña ko fi jiitu amuñu ca ndam loolee bokk na ci laaj bi nga xam ne daal la Sud Quotidien kaay samp na ko nag nañu li ci kanam raw ci gëtt wutali jamono ji Direct News yéen daw rek ba ca aéroport international Blaise Diagne foofa liggéeykatu Las SA ñoom jamono ji ñu ngi rek dellu si waat ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañu ko tey nag nee nañ dëgg rek la ñuy wax kot te ñi bu ñu ko xayma nee nañ nag seen nag opposition maanaam nag kujje ak lépp loo xam ne euh, njéem la rek ci euh, fexe ba euh, téye loolee di aéroport ba ci nguur ak Sénégal ak transfert am ci AIBD SA desandi nañ di ko waxtaanee lu mën a nekk la nag moom gestion AIBD état bu Sénégal daal di ko teg transfert am vers AIBD SA Euh, ay voix syndicale ñoom ñoo ngi koy waxtaane te loolee bokk na ci loo xam ne daal naxari na leen jamono ji ba tax na ñoom nag ne nañ euh, daañu euh, jannoo ak lu ni mel ba fay feeyam ngir nag fësal rek li nga xam ne moom seen ak taxawaay Pape Alé Niang tam def na lu ni mel ca boru ko RTS lii quotidien ne kaay nag dañu RTS ubbil nay buntoom jamono ji daal la ku jéeg politique gi loole yéen kaay nag ne ñu mbir la moo xam ne Pape Alé ko fa bëgg a ma Mamadou Diagne ñoom jamono ji nekk rek responsable support Tito ya ca boorug RTS nag ne na chaîne nationale maanaam nag télé bile tamit ji eh, jot na rek engagé wu ci lépp loo xam moom mooy eh, mbiru ko pluralisme maanaam nag ku ci nekk dal cay gis sa bopp RTS nii rek la war a doxee bu ñu sukkandikoo eh, ci Mamadou Thior bokk ca boorug CORED faw rek nit ñi xam ne télé bi la waaye tamit kujje gi ñoom tamit am nañu accès ci rajo bi maanaam ubbil nañu leen ko bokk na ci la mu ci xamle waaye nag teel na rek ngir ñu mën cee wax war na rek fan lay mujjee loole bokk na ci loo xam ne Abdoulaye Wilane di eh, yor kàddu ko parti socialiste moom moo ko xamle ay eh, yëglekaay bi ñu dem ca di eh, média la tribune yéen kaay nag yi jii dellusiwaat ci li nga xam ne moom moo jëm ci déclaration de patrimoine yu ca baax ya ca baaxul ak ya ñuy teg député yi nga xam ne daal wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ministre daal di bañ a def lu ni mel bokk na ci daal la leen di yoot lu yéenekaay bi waxtaane loolu nag mën na sax dem ba ca tëjum kaso wala bokk lépp loo xam ne mooy ay daan nañ leen di teg ci wàllum koppar ngir rek ay déclaration yu fausse maanaam nag yu tegul fenn wala bokk wax loo xam ne daal bokkul ak la nga am jàpp leen daal ni délai ba nag diiru ko ñetti weer la yoo xam ne daal jox nañ nañ leen ko ngir ñu mën ko def bu ko weesoo of nag jamono ji daal moom la ñuy xaarandi ngir rek mu fësal lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàllug rapport yu ni mel la Sonadis moom ma nga ne fàng tey ji ci tukka bés bi le jour yéene kaay société nationale de distribution loole nag ab nga naay rek ci kanamu spéculateur yi ci tukka yëglekaay bi gouvernement nga xam ne waxtaan nañu ko ci juróom-ñeent yu Sonadis yooyu itam magasin témoin ya nga xam ne Easy boutique la loole itam bés bi le jour wasaare na ko ci xatam mu njëkk que l'observateur yi ne kaay moom tey jii la mu desande moom mooy téeméeri bés yi nga xam ne daal régime bu yees bi di bosu ko Bassirou Diomaye Faye am na ko ci boppuk Sénégal bañ leen fa tabbeek léegi régime la nag boo xam ne def na fi téeméeri fan waaye nag téeméeri coow la wala boog téeméeri débat desandi nañ nag gis ay yéexite daal ci biiru ko projet ba nga xam ne moom la ñu jaayoon askanu ko Sénégal acteur yaakaar yi nga xam ne daal moom la ñu nekke tamit desandi nañ di ko waxtaane moom Bassirou Diomaye Faye nag desandi nañ tam di xaarandi lépp loo xam ne daal moom moo jëm ci loolu ko déclaration de bon volonté ci pexe yi nga xam ne moom la ñu bëgg ci réew Sénégal ka bëggoon Sénégal dëddu àdduna kooku itam la ñuy waxtaane tey jii ca tout cas yëglekaay boobee di enquête jàppale nag ni Baba Diaw moom dëddu na àdduna moom ab homme d'affaires la woon mu mel ni industrie ba ñàkk na capitaine am moom nag ndàppale ni góor la rek boo xamante ne nii amoon na rek dayoo bu mag waaye ab milliardaire la woon boo xam ne kenn xamalu ko woon dara jàmm ak dal bëri sutura bu ñu sukkandikoo ci enquête yi ni kaay itok ak rek lépp loo xam ne mooy succès ba mu am moom mathématicien bi ne moom rek moom moo nekkoon ca wat rawatina rek mbiru ko hydrocarbure ya moom Senghor bëggoon na ko lool mu nekkoon xaritu ko Abdou Diouf maître Abdoulaye Wade joxoon ko cër bu mat sëkk euh, kii di Macky Sall nag doon tibbi ci moom maanaam nag defoon ko rek koo xam ne ni euh, fa la doon euh, yokkee xelam jàppale nag ni kookee moom moo fi bàyyeekoo bu ñu sukkandikoo ci l'enquête yéen kaay mi tey si rek daal di dellu siwaat ci jaar jaaram ma tàggat yaram ma record yi ni kay la mu wax tey ji moom mooy doomi pendanaar bii di Ilimane Ndiaye moom nag wutali na tofis yu Everton dellu na ca booru ko Angleterre ginnaaw nag at ma mu dund tey ji ca euh, biir France ak équipe bi di Marseille Ilimane Ndiaye nee na nag yàkkamti na loola sol ay dàllam ngir rek wutali pelouse ba ngir rek euh, bégalati euh, fansiya jàppale nag ne jamono ji yéeni kaay bi lam cay xam ne daal moom mooy Idrissa Gana Gueye sóob na ca loxoom bu a baax ci lekk waxtaan ba tax moom Ilimane di xaatim ab contrat jëmale ko ci tofis yu Everton Coupe d'Afrique des Nations atum 2025 tirage au ba tey la jàppale nag ne euh, ñi euh, diree ko Sénégal soobu na ca ndaxte ma nga ca chapeau bu njëkk ba ñeel favori yi ca bile ko compétition bokk na ko ak Maroc Égypte Côte d'Ivoire Nigéria jàpp Tunisie ba ca Algérie Cameroun Malik ak euh, Afrique du Sud ba ci République démocratique du Congo jàpp Ghana bokk na ci tam yeneen équipe yoo xam ne xaw nañoo yemamaay bokk ca booru yeneen nga xam na nag ñoom ñoo ca gën a néew doole ñoom ñoo féete ca chapeau 4 ba bu ñu sukkandikoo ci record bokk na ci daal yamu lim Burundi Libéria Éthiopie Lesotho ba ca Eswatini jàpp euh, Tchad Soudan du Sud Botswana wala bokk Niger jàpp Zimbabwe yéenekaay bi nag nañu Cap Vert Burkina Guinée ñoom ñëpp ay épouvantail lañ bu ñu koy xayma jàpp leen tamit ne ca booru ko Copa America quart de finale nag daañu leen tàmbali tey jii ci guddi jogante ba nag bu saf sàpp lañ cay xaar diggante Argentine ak euh, ñii di waa Équateur jamono ji euh, ndax Messi dana ca bokkam déet ab laaj la boo xam ne samp nañu ko waaye tamit Équateur Argentine ngir Messi nag ab formalité la jàpp leen daal ne loole bokk na ci daal ci daj dëpp ba tey ji Aïcha lii ma luut ci nekkaay xëy fësal tey jii nii. di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam di ñu ngi lay jaajëfal. cant ak ngërëm ñenn la yow. merci beaucoup ñu joxante dig daje ba ëllëg incha jërëjëf Grégoire Samba Ngom ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi jamono ji nag juróom-ñetti waxtu yu toftal ñaar fukki simili ak ñett ah, daal nay jot des leen ak ñun dañuy gën a yaatal ah, xibaar yi wéyal matinal bi ak li nga xamante ni moo di la revue web ah, bu ñu noppee waxtaane actualité politique ak économie léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkat ci plateau bi